mbokk yi euh, internet euh, Equivox TV tey bàyyi xel seen émission c'est politique euh, ñu ngi am tey comme gan capitaine Mamadou Dieye ñu xam ko jiite it mouvement nit xam naa dina ci ñëw guleet ñu gis ku jiite ku ku tuddee mouvement nit peut-être dinañu wax lu waral nit ki ak it buñ ko faram-fàccee lan lay joxe capitaine ñu ngi lay nuyu. mbégte bu baax di teew fii nii di nuyu mbokku internet yi. di la nuyu également yow mi nga xamante ni yaa ma may opportunité bi. Euh, maa ngi koy junj sànq laata loolu actualité bi xam nga ko tey euh, di euh, coow li am ci des médias ba ñu jàpp ni acharnement la ci ñenn ñi soo koy bàyyi xel loolu nga jàpp. waaw man dama jàpp ne dafa am loo xam ne il faut ñu am ci détachement tuuti. Hmm. parce qu'on doit faire la différence entre ñi nga xam ne dafa am bërëbu liggéeyukaay bu ñu nekk. te du des ak ki nga xamante ni tey. moom lañ mën a jàpp ne moo sos bërëbu liggéeykaay boobu te sóobu ci politique donc ñi nga xamante ni ñooy liggéey xëy na tey bu fekkee dañ leen nar a xañ liggéey loolu lu metti la am na lu ma ci xam parce que def nañ ma ko kon loolu xëy na dinañ am benn sentiment euh, empathie ci ñoom. est-ce que war na tax nguur ragal. waaw parce que waaw tey média dafa doy waar. day dégg ñu ne la la télévision c'est le quatrième pouvoir dafa am lu tax. te tey dama wax koo xam ne day politique moom bërëbu liggéeykaay bi ak ña nekk ci bërëbu liggéeykaay ba di fa liggéey ca la ñuy liggéey ay taskatu xabaar lañ taskatu xabaar nag dafa am lu ñuy wax la critique am l'exposition des fait am la dénonciation am l'analyse ñett yi nga xam ne moom laa njëkk lim nag moo gën a fës tey ci média yu Sénégal yëpp daanaka média yëpp ak quelques exceptions près dañuy wone fu ñu féete ah oui même buñ ko waxul da ngay xam ne ñii dañuy wax parce que diw moo tax. moo xam nguur euh, moo xam nguur gi lañuy non dangay xool émission yoo xamante ni du ma tudd turu kenn da nit muy wax nga xam ne kii tey nekkul dans l'objectivité maanaam analyser wul parce que journaliste buy wax kenn warul sentir ne kii am na lu ko metti ci liy xew moom il doit juste rapporter les faits bu ko muccatul def mu analyser faits yooyu mais bu ñu demee mais ñu ci ëpp ci ñoom loolu la ñuy def. dañuy rapporter ba pare nag joxe ci seen gis-gis analyser ko fi réew mi toll. joxe sa gis ñu ne métti na. joxe sa gis-gis. oui ak analyser bokkul. ah oui analyser c'est démaquiller de tout sentiment et de toute émotion mais joxe sa gis-gis mais yaa ngi fësal say émotion moo xam sa diine lañ laal moo xam sa parti lañ laal moo xam sa tariixa lañ laal moo xam sa askan lañ laal te da nga koy gis ci journalistes yi à plus de 80 pour cent loolu dafa am ci média donc bu fekkee nag kii moom kër ga day politique. ah am na nu muy demee ci politique am boobu par rapport ak nguur gi ah mën nañu def amalgame parce que tey dama jàpp ne Bougane ak D-Media ñu mais tey ki moom D-Media day politique xëy am na nu muy taxawee wala nu muy waxee noo xamante ne arrangé wul nguur gi te sax ñu bëri jàpp ne tamit moom instrument bi mu yor muy D-Media da koy utiliser. est-ce que yow impression boobu nga am. personnellement du ma nekk kuy topp média wala di suivre hmm. mais de temps à autre di nga tombé ci loo xamante ni da ngay gis journaliste bu fa bokk muy wax loo xamante ne da nga xam ne kii tey mi ngi ci niveau émotionnel boo xamante ni nekkul niveau journaliste buy analyser. lan moo ci ragaloo nguur ba mu yegg ci extrémité bi ba ñu jàppandi xëy na li mu bëgg mooy tëj ko. waaw léegi man je fais la ba tey je la différence. Hmm. xam nga tey xaw ma lu xew ba ñuy jàpp ne dañu war a tëj ay comptam wala fisc mi ngi koy topp et xaw ma ko donc côté juridique boobu man mënu ma ci wax dara. mais je pense que foofu lañ gën a war a accentuer que non journaliste yi wala dañ ko bëgg def lii parce que tamit tey man engagé wu naa ci politique def nañ ma yu bëri yoo xamante ni mais tey man mënoon naa ko utiliser. ah oui mais pas bien sûr. combien yow tey man xañ nañ ma ma liggéey état bloqué sama lépp di ma topp fépp mais man je ne suis pas un criminel carte nationale d'identité la su ma ko waree am ñu bloqué ma génne ma ci fichier est-ce que du dañu am ay dossiers yu yu yu yu compromettant ci yow. non non yu waral ñu am taxawaay boobu ci yow. état boo engagé woo ci politique. mais dëgg la man ah. soldat la je ah. viens de l'armée si biir armée boobu ma amoon fa benn spécialité boo xam ne c'est pas n'importe quelle spécialité. donc su ma mooy arme blindée maanaam man dama bokk ci armée yi nga xamante ni wàllu renseignement ak wàllu xeex man ci côté boobu laa doon liggéey. nga xam ne fondement wu état pratiquement ci loolu la taxaw. Hmm. donc tey su ma yeewoo suba teel tekki samay nombre tànk ne damay politique mais yoon la état gëstu man lan moo ma def loolu li ma def d' que dans notre histoire mosul am ku dëggal ni euh, dañu fomante ay coup bàyyeekoo ci ay kilifa yu peut être renseigner état mal ko renseigner wala ñoo ko defee noonu uniquement pour ñu am taxawaay bii ñu am ci yow mooy foo dem ñu ngi lay topp xañ la liggéey xañ la lépp. parce que déjà à la déjà man ser bi ma bokkoon c' est le donc ñooñu xam nañ ki ñu amal affaire donc li may wax manipulation complot piège dafa bokk ci yoonu kuy politique dañ la koy teg nga bëgg ko nga bañ ko. parce que au sommet de l' état y de la manipulation des complots et des pièges njiitu réew mi si loolu lay xëy ci lay gont ci lay fanaan. pour la loolu. parce que réew yi noonu la ñuy doxee. il faut nga manipuler nga complot xoolal yow guerre yi nga xamante ni moo gën a am doole ci àdduna bi. mais c' sur la base de manipulation pur parce que intérêt la ñuy dem wuti ça c'est de la géopolitique pure et la géopolitique commande la politique intérieure. comme ce qui se passe à Guinée-Conakry ni ñu daaneel Alpha Condé. yëpp da ngay gis ne ay jeu la yu ñuy teg. ba ci ki ñuy woowee l'homme mais yooyu yëpp dafa am lu parce que am na réew fu muy toll am na koo xam ne bu ko naree jiite armée bi jël réew mi moo gën a sedd kooku jiite réew mi lii fii laa ci yem. mais état maître Boucounta yàlla waxoon na ko ne même mois de mars bi tàngoon na jamono joo xam te ne am na ñu nekkoon ci biir mooy ñooñu woowoon. donc ko wax ni bàyyil ñu xel mën nga ñoo défendre parce que njort nañu ni affaire yi bu continué woon ñoom it ñu amaat beneen taxawaay. Ah, donc état man dama jàpp ne dañu da toll suñu réew foo xam ni médias yi bëri na réseaux sociaux yi bëri na donc on est dans une illusion boo xamante ni supercherie daf ci bokk tricherie bokk ci tromperie manipulation ci loolu lañ nekk rek moo tax situation dina taxaw sax dëgg bi pour nga xam sax fan la féete c'est un problème parce que ñii dañuy wax jëm gauche ñii wax jëm droite voilà moo tax politique daal dañ ci war a dellusiwaat setal ko. et puis ak violence bi ñu ci gis noo koy analyser. Mhm. ci kàddu moo xam ñi fare ci nguur geeg ñi fare ci kujje gi gis nga li mhm. xewoon ci Ziguinchor bu yàggul dara. Mhm. Euh, loolu yëpp buñ ko indiwaatee yow xëy na sa xam-xam màcc na ci wàll wi est-ce que euh, jàpp nga ni fi Sénégal jëm euh, lii dina dalal xel. waaw parce que dafa am ñett yoo xamante ne tey moo taxaw dafa am lu ñuy wax la paix la politique et la sécurité donc ñett yi bu taxawee. stabilité lay wund donc ñi nga xam ne dañu nekk ay njiit tey ñoom si seen bopp war nañu xool ñoom njiit boobu naka lañ ko nekkee bu ñu paree ci loolu ñaleen topp tamit war nañu xoolaat seen tàggat yi ñu leen war a tàggat ci biir bànqaas yi nga xamante ni mooy parti politique te yii day ñëw ci juróom-ñeent yoo xam ne bi ci njëkk mooy ñett-ñett yi njiit bi si boppam li muy wut ban xam-xam la ci am moom si boppam ñi ko topp ban xam-xam la am pour ñoom ñi nga xam ne ñoo ko topp yaakaar nañ mën na am li muy wut mais aussi tey jamono ja muy wutee la muy wut ban xam-xam la am bu méngoog jamono jooju léegi nag njiit bi si boppam engagement politique bi mu am dafa am poids bu muy jur parce que ñi la topp dañ la yaakaar yaakaar la ngir seen situation changé yaakaar la ngir seen gox changé yaakaar la ngir seen réew changé loolu poids bu diis la loolu mooy indi la portée du leader maanaam bi boo ak moom ab sa xam-xam war na yokku sa comportement war a soppeeku ba ku la gis xam ne am na ci loo nekk loo xam ne da lay jëmale kanam. loolu am gisuma ko. gis nañ fi ay leaders yoo xam topp nañ Ousmane Sonko ñii topp Khalifa Ababacar Sall ñii topp président Macky Sall ñoo ñëpp ci même saak nga bi ngay gis yëpp coow yu metti yi nga gis yëpp te boo ko xoolee ba ci biir mais du dara intérêt réew. ah oui nga ko justifier. ba ci ñuy woowee activiste engagement bi ñu am ci réew bi ñoo Guy Marius Sagna euh, le mouvement Y en Euh, frappe France dégage ak ca aju ñooñu ñëpp. xam nga histoire réew jamono ji ay Xaq ngi fa. histoire réew dafa am lu bëri lu ko comporté moo tax pour man depuis 2011 defuñu politique parce que réew activiste si boppam lu defar réew man gëwuma lool. Ah réew homme politique moo koy defar parce que réew taxawaay bi mu laaj activisme dafa nekk ci brutalité des forme boo xamante ni ci lu mën a déstabiliser réew lay gën a dem que lu koy stabilisé ah oui effectivement kon ñiy wax ñii yëpp ñi gis nii yëpp maanaam seen forme d'engagement yi luy déstabiliser réew la. non du ñëpp maanaam mais tey boo leen gisee ba ñu commencé di xeex ba tey bu dee dix points lañ doon xeex neuf yëpp ñàkk nañ ko wax ma seen xeex yi coow yu bari yëpp ba mu commencé ba tey lan nga mën ne lii atteindre nañ ko est-ce que dafa empêcher état bu waree def dara mu def ko. ah bi ñu fi naree woon yóbbu Ousmane Sonko ñoom ñu jàpp ni kat euh, maanaam état suñu démocratie lañ nar a ñu taxaw. nee nañ euh, état dafa def reculat. moo tax fan la mujjee. ba léegi. Euh, quatorze morts. oui waaw. Ah. quatorze morts kuy responsable. aux heures sombres de la défaite. chacun est seul responsable. chacun est seul responsable de tous. kii moo tax ma xoolee leader. am na loo xam ne amul ku nekk ci nguur amul ku nekk ci kujje ñëpp ci bokk yam tollu nañ foo xamante ne bu intérêt Sénégal taxawee amul pouvoir amul opposition dañu war a effacer seen ay tour effacer seen ay couleur effacer seen ay barrières. est boobu nga ñu jàpp ni war nañ dem jusqu'au bout de li xewoon mois de mars ba quatorze bakkan yoo xam ni rot ca ñu mën a situer les responsabilités yi euh, boobaa kan moo ci ëpp responsabilité moroom. man dam déjà dama jàpp ne dafa am lu jiitu loolu. parce que tey euh, nit ki mën nga ko contre mën na nekk sa adversaire mais man nee naa bi ma gisee ñuy wax affaire Ousmane Sonko premier jour moo gisee man personnellement réaction bi ma njëkk am. Mm. dama ne su ma jotoon si président Macky dama ko naan na arrêté lii. ah parce que du dem fu baax. réew gis nga environnement bi ci boppam ay doomu aadama la contenir environnement boobu frontière si boppam moo ko déterminé te ñett yi yëpp dañoo am comportement dañuy dund li nekkoon bu njëkk ak li nekk léegi bokkul moo tax ci côté boobu ñiy wër président Macky Sall appareil étatique boobu ils ont parce que mmh. loolu dañ ko war ñun ñu ngi woon ci biti di ko gis muy ñëw ñoom ñi ngi ci biir ak renseignement yi am yëpp loolu waru leen woon rëcc donc nit ki dafa am foo yam ak moom yàlla moo ñu bind mais yàlla sax dafa am fu mu ñu yam ñun nit balaa mu ñuy utal limite ñun nit ci boppam. kon yow bu ñu la déggee ñiy wax ni nañu nañ dem procès moom dañuy wax lu leen man de bu doon sama coobare boobu. Mmh. loolu noonu problème boobu bu jàppee ne ñaari sénégalais la concerné ñu nekk ay citoyen man folklore bi yëpp gisuma ko fi jaar. déjà mën nga jàpp ne xëy na kenn ki nit ku siiw la parce que bu demee élection présidentielle jël troisième effectivement bu ñu la tuumaalee lu mel noonu man je pensais que mënoon nañ ko régler neneen loo xam ne du jur jéye yi mu jar kon da ci ñu wax ne nañ classé dossier du ma du ma nañ ko classé mm-hmm. mais bu fekkee dafa am ñu nekk ci ginnaaw am ci benn intérêt particulier parce que man dama jàpp ne lu ci ëpp affaire par parloo kese la moo indi lii yëpp. mais ba léegi juge bi ñu war a tànn ngir mu wéer liggéey bi ko bëgg a jox rek nga daw bu ñu waxee ñu ne dossier bi mbiru mystique mu ci ne euh, loo gëm la. man de personnellement. suivre musuma suivre affaire Ousmane Sonko Adji Sarr suma intéressé du vidéo du journal du lenn musuma intéressé parce que jàpp ma ne lu mën a jëmale suñu réew kanam du politique du état du dara. tey mënoon naa comprendre koo xamante ne tey day wax xam-xam bu leer ci réewam ñu bëgg ko noot wala ñu bëgg ko néewal doole mënoon naa comprendre benn sénégalais wala benn sénégalais boo xam dafa am ay jafe-jafe ñu ko dimbali mais lii ñun man politique laa def affaire ay crypto personnel ak ñoo xamante ni saa suñu xëyee parce que loolu nguur gi dañ koy def aussi da ngay gis ñu bëri ñu ànd ak moom seeni wax nekkul ay wax yu jub alika xamb nit doo yor doole ba pare di xamb hmm. doo yor doole di ko jaay dafa yoo xamante ni il faut que ñu dindi ko ci politique ku ci ne da nga am droit far fu la neex ku ci droit ànd ak ki nga bëgg àndal mais dafa am yoo xam ne rafetul ci politique. d'accord kenn du ci gagné. dinañ ci ñëw ci euh, Askan Wi ak yi ñu gis ci coalition yi ci locale yi ñu jëm euh, jamono bi nga démissionné ci armée bu Sénégal ku mel ni juge dem également démissionné ci magistrature ñu dàq Ousmane Sonko euh, ci administration bu Sénégal ñu jàpp ne xëy na yeneen xeetu politique ñooy ñëw. jamono jooju ñu xaw laa jege la ak Sonko xaritam nga ak yooyu mu jékki-jékki nga xaw a démarqué wu dafa am loo ko reproché wala da jàpp ne ci démarche ci wàllu politique la ma doon woote ak fi ñu ci toll nii am na loo jàpp ni erreur la ci moom soo koy moom Ousmane Sonko lan nga jàpp ni mooy ay faiblesse ñun ñett ñëpp dañoo bokk ci phénomène yi nga xamante ni moo tax sànq ma ne la environnement bi li mu contenir ak li nga xam ne moo wër environnement bi yooyu day évoluer day dund moo tax nga dem ba xëy na lu ñu jàppal woon ne mën na nekk mu dem ba loolu di mën nag waaw mais léegi nag bu ñu ko defee ba pare muy tey tekki suñuy ndombo tànk dafa am feneen feneen fu ñuy xaar muy xam-xamu état nit nag du parce que jeune nga moom muy jeune mu bàyyi liggéeyam nga bàyyi sa liggéey que da ngeen war a ànd mais day fekk ngeen tolloo ci loo xamante ni da leen di méngale ci li ngeen bëgg muy tey réew mi change mais man bi may xool moom ni muy doxalee discours am dama ci gisul loo xamante ni niveau bu état niveau lan nga gis ni. Euh, amateur waaw xam nga politique coow la politique coow la et cetera mais ci biir coow boobu aussi y a beaucoup de manipulation te réew mi aussi fu mu toll ci jeunesse bi 70 pour cent ay xale lañ voilà donc affaire de guerrier radicalisme loolu du politique. man dama hmm. koy déglu ma xam ne niveau état des nañ ci lu bëri. te surtout nga bëgg jiite réew moo xamante ni lu ñuy wax pays à extrême fragilité dafa am loo xam ne nga ko war a comprendre ci état comprendre ko ci réew yi ñu wër comprendre ko aussi ci àdduna bi ni muy doxee mais loolu gisuma ko. parce que à partir même du titre de son livre solution solution c'est la rigidité donc ci ñaari baat yi rek lu ñuy wax la prospective ak la prévision lii ma mën ko tracer si ay tableau muy gën a yomb pour nit ñi comprendre loolu rek dañuy ne le pas à un pays comme le Sénégal kon yow bu ñu la déggee mooy ni Sénégal daal ki koy jiite gisagoo gisagoo kuy uutu président Macky Sall gis nga ñett yi ma la wax nii sànq bu ñu ko boolee croisement bi kii méngoo ak croisement boobu kooku mën na yóbbu Sénégal kan la ko gisaguma ko Euh, doo ñuy gisaguma ko su moo gisee dinaa ko wax parce que tey dafa am données yu bëri yoo xam ne daal nit ki ci taxawaayam ak discours am loolu dañ ko ci war a gis mu génn lépp loo xamante ni rek diw la diw waxu nit maanaam parce que ñun politique gu Sénégal fu mu toll nii 2021 si waxu nit lañ nekk diw diw laa te loolu dara lu dul far ak kii faruma ak kii foofu lañ toll Sénégal kenn waxu fi ci réew mi lu koy yóbbu coow bu gis ak dérive yi ci réseaux sociaux yi lan mooy saaga am nañu jàpp ne état moo war a taxaw jeexal ko takk. Euh, gis-gis boobu nga ci am. pour man état du état mooy taxaw loolu responsabilité ñëpp la képp ku jiite donte benn nit nga jiite da nga war a def xam-xam ci moom moo tax ma ne tey ki jiite si boppam mooy kan tey lan moo tax ñuy wax yonent lan moo tax ñuy wax kilifa diine mais ñun parce que dafa am xam-xam bu ñu am boo àndeek ñoom. àndoog ñoom ci non da nga leen déedéet da ngay ànd ak ñoom ci tey dafa am loo xamante ne dañ koy def ci yow muy xam boo xam ne day am jeexital ci yow sa jikko sa wax koo gis am nga droit waroo ak moom ci ay kàddu parce que ni ngay gisee ak ni muy gisee du benn mais warul tax ngeen dépasser yenn mais Sénégal tey ñiy wax ñëpp ils mhm. ñëpp. ba ci le formation bi moo des. non moom du ma ko du ma tudd comme koo xamante ni il dépasse parce que tey président de la république boo ko jëlee ci ay kàddoom moom suy wax xëy na il parle comme un président léegi ci biir wax boobu noonu c'est un être ñi ko wër. ban responsabilité lañu am moom ci boppam moom moo tax tànn ñu ko wër ban responsabilité la ci am voilà donc yooyu yëpp ay pàcc yu bëri la yu ñu war a analyser donc njiitu réew la Sénégal tey du moom kese moo fi nekk am na ñu bëri ñu fi nekk donc la première responsabilité lui incompe en tant que chef de l'État mais la responsabilité nous incombe à tous en tant que Sénégalais. parce que suñu réew la Guy Marius li muy def yëpp ci engagement ba Sénégalais yi dem am ñu jàpp ni lu am solo la cotiser ko jëndal ko oto taxawaay bi mu amee yooyu yëpp jàpp nga ni. Euh, des na. lu ñuy wax naan une personne ne se juge pas à ce qu'il a été pendant un moment mais cette personne doit se juger à tout ce qu'il a été pendant tout le temps bu dee 100 pour cent la def doon ne 100 pour cent yi baaxul am na ay combats yu mu mën yoo xam ne forcément il fallait que quelqu'un prenne la place il a pris la place et c'est bien donc hmm. kuy engagé wu bàyyi sa njaboot bàyyi sa kii doo ko critiquer à 100 pour cent mais tey niveau yi ñu nekk ñoom di fa xeex outils yi ñu soxla man dama jàpp ne amuñu ko. yan outil la ñu amul. non mooy nga xam déjà yow objectif lut bi nga am environnement bi lan mooy réalité lan mooy réalité parce que déjà état si boppam mel na noo xam ne boo bëggee xëccanteeg moom liy tooy seew lay jógee. ah oui mais bien sûr. te révolutionnaire bu fekkee da nga jàpp ni révolutionnaire révolutionnaire du dem kaso anti-impérialiste. révolutionnaire du dem kaso du dee. les gens ont besoin de toi. Guy Marius Sagna mais ils s'identifient ñu ci ëpp ay Thomas Sankara. Euh, euh, ñi nga xamante ne vraiment bu ñu wax Afrique en terme de révolution ñoom lañ ciy gën a tudd mel ni Nelson Mandela ah rupture yi ñu indi en terme de gouvernance ak cap bi ñu jox seen réew surtout ku mel ni Thomas Sankara ba ñëpp amoon ci espoir mu suscité woon taxawaay bi mu amoon avec euh, les colons ñi ñu mm. jàppoon ñoo yoroon àddina moomoon ko muy discours de rupture yu ñuy xaw Euh, maanaam euh, rejoindre ci discours ku mel ni Ousmane Sonko gi ci aju yu mel noonu taxawaay yooyu comme Kémi Seba ni mu koy defee un peu partout yooyu dañ ko soxla ci. loolu moo gën a nekk seen problème man damay wax ne avoir une idole ou un exemple ce n'est pas vouloir être comme lui c'est vouloir être plus que lui pour rester soi-même Thomas Sankara période ba mu doon xeexee jamono boobu xam-xam bi mu méngool yoroon na ko est-ce que xam-xam boobu moo méngoog tey suñu jamono yi ba tey. muy benn. nootuñu ba léegi. Thomas Sankara non loolu exemple boobu laa lay jox moo tax may wax li may wax ni Thomas Sankara réalité yi ko waroon ba mu nekk à sa disposition muy xeex li mooy xeex est-ce que réalité yooyu moo ñu war ñun Sénégal léegi nag coow bi mooy ñooñu ak li ñu def yëpp lan moo tax ñu continuer ñu noot ba léegi donc es ce qu'on devrait pas changer de cap changer de fusil d'épaule maanaam changer ni ñuy xeexee. nan la ñu war a xeexee. on doit s'engager en politique gis nga les la là utilisent de la brutalité et de l'agressivité naam c'est pour une justice sociale et c'est bien mais cela peut être dangereux parce que réew yi ñu déstabiliser yëpp ils portent des combats te combat yooyu noonu foo laxasu ci intérêt politique te politique bu dajeeg leneen lu dul moom moo ko ëpp doole mais du ñu jaaxal la yow loolu nga jàng ci lañ la tàggat mais du loolu ngay prôné mais moo tax man la bu doon pourtant un peu partout en Afrique coup d'état yi ngay dégg yëpp foofu la ñu mujj waaw mais coup d'état yooyu ni yow moo ñëw fan la réew yooyu mujjee boo si génnee waa te kooku dañ ko fal démocratiquement force spéciale muy Paul Kagame mais yeneen réew yi nga déggee coup d'état am na fan la mujjee. instant bi ñu ci ay transition transition bu demee parce que transition wu réew c'est ça le problème en fait gis nga ñu bëri sax bu coup d'état amee dañuy fàtte ne un coup d'état c'est le continu euh, la continuation constitutionnelle de l'état loolu mooy coup d'état donc ki def coup d'état ñu bëri dañ naan bu defee six mois war na joxe pouvoir non gis nga kii ñëw war a def coup d'état dans day fekk les institutions de la république paralysées bu defee coup d'état bi dafa war a jël réew mi remettre lépp en ordre balaa muy joxe nguur googu donc war na am une lecture politique stratégique ak géostratégique boo xamante ne buy egg si ñëwul pour non day ñëw pour defaraat réew mi. gëm nga lu mën a am la suñu réew yu mel nii am na ñu bon déjà parce que ñun dañu am socialement dañu bëri ay scission en fait loolu mën na am ci réewum Sénégal tey bu ñu demoon ba tollu foofu. gëm naa ne bu fekkoon ne coup d'état la fi am ki koy def mën naa am aptitude boobu mais genre d'autres forces si yeneen réew yi. parce que hmm. dafa am lu bëri lu koy wane. la preuve mooy tey fi ñu toll nii waaw dafa am yu bëri yu leen manqué socialement parce que déjà socialement dañu bëri ay barrières te boo amee ci réew rek c'est compliqué. c'est compliqué hmm. nit fi ñu toll dégg nañu say rapport ak le président Macky am na ñu jox ni sax dafay toog ak moom daf lay consulter ci ay question yu mag man for naa ci réew bëy nii yàggul dara toog nga ak moom. Euh, ci des questions stratégiques géopolitiques yoo xam te laaj na la ci euh, sa gis-gis moo xam peut-être li xew euh, ci Sahel bi moo xam li xew récemment wax nga ko ci lu ñu wër parce que <laughs> fële la départ woon Burkina Faso xawoon dugg un fu mel ni Côte d'Ivoire génn dugg ci Guinée Mali Mauritanie gi sax nga xamante ni voilà am na ci yoo xamante ni c'est pas encore li ñuy xaar ci ci fragilité suñu frontières yi ci aju vos rapports avec le président Macky Sall. waaw ñu lay prêter ni saa yoo wax rek parce que da ngay da ngay maanaam moom moo tax ngay wax da nga koy bëgg a défendre di ko bëgg nekkal ci ci ci ci foo xamante ni daal euh, dina yëg boppam. ba sax xëy na mu woo la di la gis ni daal yaa ngi ci benn niveau bu uute ay nitam ay ñoñam niveau bu ñu nekk est-ce que lu ñu mën a teg loxo la sa diggante ak président Macky ah, man je suis un enfant de l'État. waaye que man dañ ma former pour ma servir État léegi nag l'expression de l'État. la première apparition c'est le chef de l'État bu président de la République donc tey booy wax di analyser lu jëm ci état moo tax nit ñi dañuy jàpp ne da nga far ak moom wala da nga ànd ak moom mais man état laa faral parce que l'état est une constante ñi koy jiite ak ñi koy servir yëpp variante lañ moo fi nekk tey démb nekk fi woon te bu du fi nekk donc man du question ne dama ànd ak moom wala dama far ak moom maa ngi wax ak nag nit yu ko jege. Hmm. comme ni may wax ak ñu jege opposition bi. te li ñuy wax yëpp nag intérêt Sénégal moo tax ñu wax stratégiquement parce que ëllëgu Sénégal fii ak juróomi at lu ñu war a xool. est-ce que proposé la nga jege si ay postes yoo xam ne xëy na euh, pourquoi pas yow waroon la mën a gis ministère de l'intérieur ministère de la justice. Ah. Euh, en tout cas euh, ci yenn ci bànqaas yi nga xamante ni am na solo ci fiñ ci toll. li ma mën a surtout degré d'information yi ngay amee. li ma mën a wax daal mooy hmm. man. sama réew moo ma intéressé donc aw ma problème waa ji woowoon nga dem wuyu problème ci loolu parce que tey mooy njiitu réew bu Sénégal bu fekkee dafa am lenn loo xamante ne lu ñuy def la moom mooy bunt bi hmm. donc tey aw ma problème ci loolu moo tax sànq may wax waxu éducation politique c'est-à-dire qu'on est dans le radicalisme à la limite dans l'extrémisme boo waxee si nit sax ñu saaga la wala ñu wax la leneen alors que non politique c'est pas ça te ñun nous ne sommes pas dans un pays où on est adepte des ruptures brutales. d'accord sori nga sa famille waaye ba léegi yaa ngi xam li xew ci biir wala armée bi laa bëgg wax en termes de renseignement di xam. exactement man nag xam nga am na yenn formation yoo xam boo ko amee ba pare am na yenn liggéey yooyu def aussi dara mën nga ko topp parce que tey terrorisme armée police gendarmerie ñu ngi koy suivre. ñu ngi ci am liggéey boo xamante ni ñu ngi koy def te ñu ngi def réorganisation dispositif yooyu da nga xam naturellement du ñu nelaw ci yooyu dañ koy def mm. voilà nekkuma nag koo xamante ni da leen di topp maanaam nekkuma di wax ak wala di jéem a xam man génn naa génn naa voilà léegi je suis je me suis consacré à autre xamante ni autre chose boobu mooy nit nit euh, c'est quoi nit finalement yow jël mouvement tuddee ko doomu aadama waaw dama jël mouvement tuddee ko doomu aadama parce que ñun duñu bàyyante xel te hmm. balaa ñuy taxawal quoi que ce soit il faut ñu bàyyi xel doomu aadama parce que moom ak environnement rek la fi yàlla wàcce lépp li nga gis ci environnement bi nag nit moo ko def mais balaa loolu dafa am ay pàcc yoo xamante ni nit ki daf ko war a xam maanaam nit ki war nañ ko xamal boppam xamal ko lan moo tax mu wàcc ci kaw suuf xamal ko aussi mission am lan la ci kaw suuf moo tax pour man balaa rassemblement balaa adhésion balaa meeting nañu jàng ba pare ñu xamal nit ñi ñoom ñooy ñaan man sama idéologie loolu lay wax. xanaa kon loolu dafa bëgg a tekki ni dafa des ci jàngalkat yi. Mhm. ñu ngay woote woon ni ñoo gën a xam doomu aadama ndax ñoo leen koy jàngal dafa des ci ñoom explication bi wala nañ leen ko waroon jàngalee moo des. ñu ma bëgg a wax mooy kilifa diina yi parce que ñu ngi prêche. Mhm. di wax doomu adama fi yàlla lii la ko wàccee lii moo tax mu wàccee ko suuf wala yooyu dafa des. Mhm. waaw parce que dafa am ñetti pilier benn bi dafa nekk ci fondement bi ba pare nekk toit bi. ñaar yi nekk ci digg bi te benn bi mooy sécurité sécurité moo nekk ci kaw nekk ci suuf ci diggante bi nag moo am éducation ak santé mais éducation du dem ca école ba du dem ca daara ja éducation mi ngi commencé si yow bi nga nekk lan moo la fay xamal yow li nga doon maanaam science bi la wër santé aussi du dem hôpital wala dem dispensaire loolu du santé santé mooy environnement bi nga nekk lan moo fay dalal sa xel ci looy lekk ci looy yëngatu pour amal sa bopp parce que santé si xel mu dal la commencé après mu ñëw ci lekk donc pour man baat yi si boppam lañu amal problème li nga xam ne nag suñu kilifa diine yi comme li nga wax réussir nañ ko parce que ñoom nit lañ tabax. Hmm. tey tarixa yi fi nekk yëpp boo gisee ku ci bokk da nga xam ne kii fii la bokk loolu mooy tàggat bi ñu bëri xamuñu nekk nit pour ñu mën ko jëfandikoo il faut ñu yóbbu ko ba niveau bi nga xamante ne day nekk arme maanaam instrument tey nit bu demee ba takk bombe buñ ko joxee ndigal mu exploser boppam kooku niveau wu jumtukaay la tool mais ñun dañoo toll ci niveau wu survie maanaam ñun lu ñu lekk ak lu ñu naan lañ tal moo tax imam di taxaw jàkkaarloog moom muy wax mais la muy wax nit ñi dégguñu ko dañuy ñëw julli bu ñu paree dem ñibbi donc tàggat boobu dañu war a jël temps wu def ko si jus tubaab yi nga gis ñun nootu ñëpp éducation la ñu rawee dañu defar seen système éducatif yàq suñu bos te ñun li ñu doon suñu mag ñi bàyyi ko fi ñu wan ko ginnaaw di jëli leneen loolu mooy suñu problème. loolu moo ñu sonal ba tax ñu yegg fii euh, dernière question bëggoon peut-être nga jox ñu anecdote ci bi ngay servir armée bu Sénégal euh, yan lan yan ñoo la mës a dal yoo xamante ne peut doo ko fàtte mu doon looy bàyyee xel tout le temps nga bëgg ko may euh, ñi lay bàyyee xel ci sa politique. waaw benn ñaar yëpp daanaka ay nit yu ñàkk seen bakkan lañ euh, benn bi nag bitim réew la ma dalee parce que pour wane rek dayo bi nga xam ne ñun suñu kilifa yi am nañ ko. mooy hmm. Soudan mission yoo xamante ni ñun ci désert bi lañ nekkoon. mais booy déplacé wu dañ lay jox li ñuy wax clearance maanaam genre autorisation la parce que rebelles yi dañu disposé wu un peu partout te ñun ay kii ONU lañ doon escorté souvent moo xam lekk la wala ay personnel ONU yu wara a dem sur le terrain donc ñu dem foo xamante ni nag dañu waree wane autorisation boobu noonu mais rebelles yi ne duñu jàll ñu négocier ak ñoom ba xëccante xaw fa am finalement ñu gis photo Baye Niass si oto bu ñu nekkoon hmm. léegi nag chef nekk da ngeen xam kii ñun ko ñun ay sénégalais lañ <laughs> ndegam yow yaa koy gis soudanais di ko xam ah, askan ñun sénégalais mu ne noo xamul woon loolu mu ne ko xanaa gisoo drapeau bi. finalement li nekkoon tension mujjee sax nekk xaritoo mbokk affaire yi ñu kontaan jour boobu may nañ ñu lekk lu ne may ñu ko ba pare jox ñu sax beneen papier boo xam ne dañu naan fu ngeen bëgg dem rek su ngeen ko wanee dinañ leen bàyyi. ça ça m'a marqué pour wane dimension wu suñu kilifa yi ak li ñu liggéey ci nit ñi. Mm-hmm. yeneen ñi nag benn xale la boo xamante ni il s'appelle Souleymane Baro. dañu def incident ñu rey ko dëkk bu ñuy wax Bébé bi ça saa sama beaucoup marqué voilà beneen bi aussi c'est un soldat que j'ai perdu si benn embuscade ñu koy wax Modou Sarr ñoom ñaar ñëpp yàlla na yàlla yërëm. waaw delluwaat armée lan moo lay jaral nga delluwaat. loo xam soo ko fàttali ko rek da lay jaral nga delluwaat armée. servir l'État parce que man ba tey loolu laay wax tey su ma delluwaatoon tamit di tànn métier armée laay tànn donc mooy métier yi nga xamante ne tey gëm naa ne mooy service ultime. doo gis ñu rey mu ko am de tenue ñuy def enquête. fépp fi nga jaar wax nga li tax nga génn armée mais dëgg-dëgg li tax nga génn fa ñëpp nee nañ waxoo ko surtout man maa ko njëkk wax. non li tax génnoo fa non mooy li ma wax c'est-à-dire que l'objectif de l'armée c'est de protéger mais armée su demee bay beddi ay nit rek armée amatul vocation boobu. changement amu ci ci diggante bi nga koy wax ak léegi. non ah, li ma wax sànq. topp ma leen nekkatuma ci biir li ñuy def intéressé wu man bàyyi na je me suis engagé sur une autre voie loolu laay topp. léegi bàyyi nañ laa topp. si sama yaakaar waaw parce que. tekki nañ la kii léegi tàmbali ngaa léegi léegi d'étranglement yow jël nañ ko. bi nga ko jooyee lañ la bàyyi ñu lay gërëm di la sant. mbégte la may teew fii di la remercier yow mi ma dalal. di ñaan jàmm si Sénégal di ko ñaanal Sénégal yi. amiin yaa bi gërëm internet yi Equivox TV beneen yoon ci sa émission c'est politique.